هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه bokki jullit yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi sunu sang yu tedd yi ci sunu biir fa tabarakallah li nga xam ne tey jii moo dolleeku ci ziyaara daara ji tey di omage bi def naa ne tey jii moo waral jataay bii tey waaye nag li ko waral it yëg nañu ne incha allah du dellu gannaaw kanam rek la jëm ndax ki ñu koy defal mu Cheikh Mouhamadinil Mansour mën naa wax ne nit bu ñu ne diw moo rafet du léppam dafay am cër bu rafet ca moom yóbbaale ya ca def moo waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni nit am na cër bu nekk ci moom bu fekkente ne baax na léppam baax te mooy xol xol moo yóbbaale cër yi ci des Cheikh Mouhamad Mansour nag xol na baax le woon taxoon na bi ñu ko waree njukkal nun daara ji tey fi tey ñu nekk ci mag te ay ndaw lañu ci woon ndax mil en 1969 la ñu sos daayira bii Muntadi bii li taalimi ulumi diin 1969 45e année bi ci lañ toll ren 45e année laata ñu koy sos it tegoon na mag ñi tegukaay boo xam ne bi kenn tegu leen fa bi ñu koy bëgg a sos ba ñëwul di ko sas ci moom daf leen ne àllarba man àllarba laa te àllarba du am àllarba àllarba sëñ Babacar laa àllarba sëñ Babacar si nag du wàññeeku deeti am àllarba nu impliqué ci mag ñi sëriñ Saalix sëriñ Saalix Sarr sëriñ Muniiru ak lenn ci mag ñi ñu jàppaleenu ci ne sëñ bi lii war na ci yow jàppale nu ci bu rafet mu door nu ko nangul ñu daan ko def ci biir saalam parce que bëggul mu rëy lool ndax ormal mag ñi ormal sëñ Babacar bi ñu ko bëgg génne ci ëtt bi rek lu nekk lañ ci daj mu door na ko nangulaat ne nañ ko del yóbbu ci ëtt bi mag ñi jàpp ci ñu wàññeeku génne ko ci biti bi ñu ko génnee ci biti mu nekk problème pour moom itam ne ba léegi man daal dafa mel ne alarba ñi ma tudde woon sama bopp daal ba léegi xamul ju leen kon su fekkonte ne moom dafa nekkoon alarba ci dunduk sëñ Babacar si ginnaaw bu génnee àdduna war na noo nekk alarba ngir moom moo waral nu yëg ni incha allahu jàpp gi nga xam ne kii moom la ci hommage bi feeñ ci suñu biir rëy na lool rëy na lool te ñun yëg nañu ko ci yëgin wax na fa tabarakallah bés ngi nag boo xam ne mësu koo jàppal boppam suñ ci masaan toll rek mu ne dem nañ ci sëriñ Abdou Aziz mu jàpp ko sëriñ Abdou it moo naan jàpp bés bii moo ko jàppaat nii ba yoon dab ko mi ngi ci yoon waaye ma nga ca xelam mu ngi moom it mu ngi ci suñu xel nu dellu yi nag di ci remercier sëñ Habib ndax sëriñ Cheikh Seyd Jamil ñoom ñi ñoo ko jox seen baat muy dox ci seen diggante ak nun di leen jox compte waaye nag yaatal gii ma ko yaatal tax na la toxoon ñu jox ko koy gis nañ ko ci biir ndax ku nekk gis nga ci sa bopp loolu kontaan nañu ci bu baax tabarakallah bi ñu ñëw nag ndaw lu ñu yónni rek lañu ñu boole nag sëñ xalifa géey di membre ci bureau bi boole ñu ak imam Hadj Moustapha Sarr di membre ci bureau bi boole ñu ak imam Fadera di membre ci bureau bi boole ñu ak Abdoul Aziz euh, euh, Abdoulaye di membre ci bureau bi ak ku ñu wax Serigne Ndiaye sëñ Abdou Karim nag ne maa leen di yóbbu sëñ Abdou Karim fii di sa genn walla fii moo ñu ne maa leen di yóbbu mi ci suñu biir. Cheikh Mouhamed Mansour nag si te nga baal ma rek lu tuuti la. la daloon Abdoul Aziz euh, ab euh, la daloon Omar euh, Omar ibn Abdoul Aziz la daloon Omar ibn Abdoul Aziz moo ko dal tey moom Cheikh Mouhamed Mansour Omar ibn Abdoul Aziz yitte ak taxawaay da ko amoon ci diine ji ba ñu wàññeeku nekk tey jii yaay juróomeelu xalifa te sët la. seet ci Omar bu am taxawaay ñu ne ko yow tey ji fa tabarakalla bu yonent bi doon dund tey ji yow yaay nekk juróomeelu xalif xulafa yaa leen di cinquième yaa leen di juróomeel Cheikh Mouhamad Mansour ci xilaafa gi mu tooge juróom-benneel la ci waaye tey ji bokk dee lim doo ko lim ci ndaw ñi seet la fi waaye nag ca mag ña koy limaale loolu yi taxawaay ko waral ndaw la ndax seet la ci biir waaye boo doon lim tey say baaram da nga koy limaale ca mag ña ndax mag ña la copier woon ñoom la royoon ñoom la gisoon bokk nun jamono nag waaye taxuloon woon nag mu roy ci sunu jamono jamonoy mag ñi la bàyyi woon xel moo ko may bés bii moo ko may taxawaay yi loolu nu ngi ci kontaan bu baax baax di leen ci remercier di leen ci sant ci jàppale gi ko tabaarakal ak sunu xaaliqiin yàlla ngi dogal it moom Cheikh Mouhamed Mansour am na loo xam ne ni yàlla moom doo ko jagoo waaye am na loo xam ne da ko bokk ak nit ñi doomu aadama yi ngir wan ci ne doomu adama dafa sori ci moom mooy lan baat bi ñuy wax allahu yàlla kenn fekk ko ci waaye arrahmaani ji fëri yërmande yàlla tudd ko am na ñu mu ko wàll Cheikh Mouhamed Mansour ci la bokkoon arrahimi ji fëri yërmande yàlla jagoo ko am na ñu ma ko wàll moom yàlla ci njaamam yi Cheikh Mouhamed Mansour ci la bokkoon ba ci almaliku bi yàlla di dégg na yaay buur buur ci àdduna bi am na ñu koy dégg ci àdduna kon am na xeeti qualité jikko yu nga xam ne tey ak i melokaan yoo xam ne yàlla da ko wàll jaamam yi ba ñu di ko ba ñu leen xoolee yàlla Cheikh Mouhamed Mansour si yàlla rànge woon na ko ci fa tabarakallah asuna xaliqin kon kii bu ñu taxawee ci bésam tey jii daan ko taxawal ba ñu yëg ne dafay yokku ràmm gi dafa am na ci yokku doonu koy def nu ñu sant yàlla fa tabarakallah di ki remercier Cheikh Habib ak bokkam yu tedd yi Seydi Hadji Malick ngi ci wetam ak bokkam yi sëñ Habib a ngi ci wetam ak ñi mu ko bokkal euh, fa tabarakallahu ak suñu mbokk mu baax mi nga xam ne ak li mu fi wax léegi di Cheikh Omarul fi may tëjee rek lu tuuti rek lay doon bés bii nga xam ne tey jii moom la naan ziyaara lii ci dolleeku lépp ak li ñu ci yëg lépp nun ci suñu bopp nongu ca biir yëg nañu ci suñu bopp bu baax a baax ndax lu ñu télé woon la lu ñu mën woon la ndax daara ji ñaar dong ko composé woon ki nga xam ne dangaa jàng ci Cheikh Mouhamadou Mansour ci jikkoom tax nga dëkkaaleek moom ak nga xam ne dafa jànge woon ci Cheikh Mouhamad Mansour si dellu waaye jikkoom tax nga ne naa delluwaat ca moom noonu ñoo tànnoon bés bi di daje ci benn bés ci kanamam ñi jànge woon ci moom te jikko bàyyi leen ak ñi nga xam ne jikkoo leen delloosi ñoo daan tànnoon bés bi daan ko ko ziyaara loolu moom mooy dellusiwaat insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ngeen baal mi واجعل من أمتي علماء يعالجون داء بعد معرفة دوائها كانوا أنجما تنير بها ورضي الله عن قطب المكتوب وزاق المكتوب تاجع عارفنا بالله أبو العباس أحمد محمد سالم التجاني أيها الإخوة وأيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon ba nu sant yàlla jur jàll bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci këru coordination Tidjane de Dakar bi nga xam ne El Hadj Malick Fall mooy suñu président président du daayira yëpp ñi ñu ngi ci gannaaw ndax yëf bi dafa xat boo tax yëpp yëpp ñu am mbégte nag ci daj détail bi ñu toog comme ni ma ko waxee rek yàlla dafa joxeet Mouhamad plus ñoom ay borom xam-xam yoo xam ni ñooy faj jàngoro ji gannaaw ba ñu xamee garab gi koy faj. ñooñu nag yàlla boole ci woon ci sunu càmmi sunu xarit Alaaji Mansour Sy radiyallahu taala anhu na kenn ci jaaraat ndax dafay xat waaye bi nga xam ne interrogé ma laaj ma lan laa xam ci sëñ Mansour dama ne man daal damay àbbi wayu jàmbur ma ne unzur ila zaatihi maa shita min sarafin gën a la léegi waxtaan bi wasu bilaa xadr yi marché terminal sami bi inna fat la sëñ Mansour si léegi loolu xaddul ba yoxati ba antum naa ko def kon loolu naa ci doon sani asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf soxna si هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي wa arwaaxu kullal